عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق بالله لما ولد والخاتم لما وصل وناصر الحق بالصدق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ñu ngi sant yàlla di julli ci sangi-sangi yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant yàlla ci cheikh na ahmed tidiane radiyallahu anhu di sant yàlla ci bàyyi ñas radiyallahu anhu bala ma fee yëkkati benn kàddu <coughs> danaa jël sama nuyoo teg ko ci loxo cheikh ibrahim cheikh mahamadul maamoun ñes di suñ mag di ku yàlla baaxal su ma jëlee nuyoo boobu it teg ko ci loxoom mu teg ko ci loxo ay rakkam yépp ku mel ni ki cheikh Muntasir Amada Ñas cheikh Mouhamadul Mansour cheikh Mouhamadul Mamoun Ñas cheikh Ali cheikh Mouhamadul Mamoun Ñas cheikh Hassan cheikh Mouhamadou Mamoune Niass cheikh Tidiane teg ko ci loxo doomam yu jigéen yëpp su ma ci tuddee ne ne moo euh, tudd ci seen tudd ne euh, euh, jël ñu yóbbaale ñu des ñëpp mënoon naa tudd ñoom ñëpp di nuyu ay soxnaam yëpp di ci jiital suñu yaay soxna Fatou Ndiaye di ci Thierno Alassane Euh, ñu tànn ma ci ñi nga xam ne <clears throat> dañoo war a def témoignage ci nit ku baax ku yàlla baaxal nit ku baaxoon te bëgg lu baax nit koo xam ne ci yaakaar yi Mawlana Cheikh Ibrahim Niass Baye Niass ci la bokkoon buñ la laajee ne la dañoo bëgg nga waxtaan ci sëriñ Mamoun suñ la tegaloon sax ne dañ lay laaj tegal la ay point laaj la ay question muy gën a yomb ko ñu tëb rek ne la waxal ci sëñ Mamoun ndax dafay jafe ndaxte suñ la waxee ne la waxal ci sëñ Mamoun kooku géej bu amul tefes la ndaxte da ngay ci nit koo xam ne doomi baay la taalibe baay la nit koo xam ne dafa liggéeyal diine nga demaat xam koo xam ne teg na aspect politique am mu doon nit koo xam ne dafa politique politique boo xam ne Sénégal objectif bi njëkk mooy famille bi nga xam ne ci la juddoo muy njaboot ci baay te su ma waxee njaboot ci baay buñ ko askan ku baay jur rek doomi baay ci deret ak doomi baay ci roxo nga xam ne dañu am xàq ci doxalini société doxalin bu rafet ci doxalini réew doxalin bu rafet mu am ay cadre yoo xam ne ñii français lañ génne ñii génnee arabe te doon ñoo xam ne yar nañ leen yar boo xamante ne nii duñ jiital seen bakkan ci dara mu doon xeex pour ñooñu ñu connaître ñu reconnaître leen ci biir réew mi pour fa nga xamante ne nii aw nit ñoo xamante ne nii jànge nañ ci tubaab yi buñ indee yenn jikko yoo xamante ne nii jikko yoo xam ne méngoowut ak diine su boobaa ñii nga xam ne yaru nañ yaru daara ñëw teg yari daara bi nga xam ne yari daara boobu mooy yar bi nga xam ne moom la ko bàyyi yar te yar boobu moom moo jugee ci Cheikh Ahmed Tidiane te yar boobu moo jugee ci yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam politique na tamit pour yaatal xameem ci région Sénégal yëpp li tax mu yaatal xameem pour rek xam xamaay bu yaatu boo xam ne daf ci dimbale aw nit te yàlla tax ndaxte moom politique sociale la doon def yëkkati alalam di ko dugal ci ay nit ñoo xam ne sax xamul leen euh, nit koo xam ne la it ci yërmande yàlla gi yërmande ñi nga xamante ne nii moo dootee ko ci yonent bi dootee ko Cheikh Tidiane dootee ko ci bàyyi yërmande boobu daf koy méngoo yërëm képp kuy ni nekk ci kaw suuf sëriñ Mamoun heure boo mosaa toog ak moom du indi benn ayib nit ndax xamul nit ku am ayib sax su nit ñëwee indi ayib sax ne ko diw sàngam noonu la mel yow kooku noonu nga tudd foofu noonu yow pare nga pour dimbale ko ndax su paree dana ittewoo ay mbiram pour dimbale ko rek ko yooyu nag ci wa sallam mu ne ko yow kan nga doon ci man ne ko yow laa gën a bañ yonent bi yëkkati téeméeri gën a may ko ba mu àggee junni gën a mu ne ko eh, ndege na démb mbindeef yëpp yow laa ci gën a bañ waaye ndege na tey loolu laa ci gën a bëgg mu ko tabe nga ci sa alal tabe boo xam ne ragaloo ñàkk mukk waaye su fekkoon ne seen maamu tey jii alal li ko yàlla xeewal mu jaar ci loxoom dafa taxawoon pour defar ay industrie pour louer ay étage daf tabax ay étage bu ko louer pour dajale koom pour ay société bi génn àddina njabootam ñooy ëpp alal ci famille yi mu nekk waaye moom alal ji mu am mosu ko boole ak kenn xàmmeewu ci doom xàmmeewu ci mag xàmmeewu ci rak daf ci doon dimbale seen mitin Kër Massar mais su fekkee ne ambiance bi ci mitin bi dindi ko nga déglu discours bi mu tenir da ngay foog ne nit ku doon gàmmu di ak ay taalibeem la keroog ci lay wax ne maa ngi wax ne man sama dund bi yëpp damaa wër sene goxi yi di wesaare mbaax ndaxte kii wesaare mbaax bu ñu ko jëlee bu ñu ko jëlee ci bàyyi bàyyi mooy jëmmi mbaax ndax Baye moo doon yonent bi moo doon Cheikh Tidiane kon nag moom su amee mbaax di ko wesaare mi ngi ko jëlee ci mbaax ak yàlla mbaaxam googu nag keroog bi muy def discours am dafa wax ne man su ma demee bay politique damay politique pour wax état Sénégal ne ko euh, réew mi nekk ay këri sëriñ ñoo fi nekk waaye waxuñ rek ëppalante ak kenn waxuñ waxuñ ñëpp émo waaye ñu nekk li seen cër ci réew mi nañ ci gis seen bopp ne nag man maamu nii sama jëmm ji amul solo tey ëllëg danaa dee su ma dee amul ku mën a taxaw ci suñ ma mbokk yi ne yi bëggu lu baax ku taxaw rek dana ma seewal ne ku baax la su waxal ma ne baax na naam su boobaa sama jëmm nañ ko jël ñu lakk ko wala ñu jox ko tan ñu lekk wala ñu sumb foofu la ko joxoon yàlla nit koo xamante ne do doxam ci bëgg yàlla doxam ci xam yàlla doxam ci bëgg yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam gim xàmmee woon Cheikh Tidiane ak bëgg gim bëgg bàyyi ah tolloon na ci foo xamante ne ni bu kawe la di daaneel rek di wax ne am na jenn jamono yi ci aspect politique am Cheikh Tidiane Cissé 2003 bu dem seeti ko këram lañ lam ko waxoon keroog ba mu ñëwee ñuy jàppaleante ak Abdoulaye Wade dafa si Cheikh Tidiane Cissé def na ko mën ak yow ca Qahira daan nañ toog ay guddi yoo xam ne di ci dox dox yoo xam ne ci pays yàlla di ci dox dox yoo xam ne ci xaqiqatu Muhammad ci Ahmadiya ci pays xul bu ma la gëjee gisee laa gën a waxtaanee ci tomb yooyu kon nag nga xam ne nit ku am ci bu kawe la demee ba génn àddina Cheikh Ahmed Tidiane Niass al Khalifa seede bu rëy boobu ne lii damm damm bu rëy la damm dem gi daal jëmm yàlla ji rek ñu ci doy pour jàng kon nit koo xam ne la ku nekkaloon yàlla la nit koo xam ne la ku bëggoon bàyyi sa radiyallaahu anhu la nit koo xam ne taaliba bàyyi xaqan la nit koo xam ne la dem na ba nga xamante ne nii ci bësam yi mujj ca mopti ba mu taxawee daf na leen jëmm a ngi nii bu ngeen ko gisee gis ngeen Cheikh Tidiane demoon na ba taxaw ci sëriñ boo xam ne la dafay xaas mu am ca conférence bi imam organisé woon imam ne ko ah man de sëriñ bëgg naa ci xaas am ku ma mu ne ah sëñ bi ne na soxla bu fi nit teewlu dana faju man benn soxla rek laa am man mooy ma nuyuwanteeg moom wax ko sama soxla mu ko ah mbooloo mi de bëri na mu ne waaw du xaas ne soxla bu fi nit am faju na bi sëñ bi déparé di dugg ji ci otoom mos bi topp ko sécurité bi ma ànd ko ku néew doole la ñu dem ñu ànd bay waaj a àgg ci buntu oto bi ñu puus ma seere ma moom mu àgg jox sëñ maamu loxo jox ko loxo mu ne ah lii de wax dëgg yàlla am kaawteef la boo xamante ne nii xamee naa ci ne li mu war lu yëpp ak pas-pas yi ñu teewaloon lu ci dëgg mooy yàlla yàlla nangu nit ku baaxoon la nit ku amoon yërmande la liggéey fii ci Medina Baye jël mbaax moomu di ko wesaare ci Saalum ba nga xam ne tey bi mu génnee àdduna njabootam organiser ci Sorano pour organiser nañ bés ci euh, kër bu mag grand théâtre pour wane mbaaxam pour jàngale ay leçon kon ñu ngi organiser ak bu jot ci date boobu noonu di organiser jotaay ci Jilaxaar lañ fay def rek mooy jàngale ñu dem Cheikh ngi toog mu doon noonu koo xam ne taxaw na amee kàddu Medina Baye daan ci diisoo ak ñëpp ki gën a mag ba ki gën a ndaw liggéey liggéey boo xam ne tey jii état respecté na ci Médina xool ko beneen bët ndaxte nit ku amul crédibilité woon euh, nit ko amoon dignité la woon nit ku yàlla baaxaloon jàkkaarloo na fi ak Ablaye jaar ci politique loolu yëpp pour fexe rek kaw Kaolack tege ci yoon loolu soxla wutoon jiite mairie sax na bu ko bëggoon am soxla ca après xayaatam ca ca ngay xamee ne lim déparé ne dafa soxla mairie Kaolack bi soxla wu ko waaye ñi fi woon la doon joxañ rek pour ñaax leen pour ñu góorgóorlu xam ne suñ ko jëlee pour yàq ko moom dana ko jël teg ko ci loxol ñeneen ci mun ci dundam discours am dafa wax ne man bëggumaa nekk président de lu tax bëggumaa nekk président mooy su ma nekkee président de danañ tooñ ci sama xaq danañ dóor ci sama danañ tëj kuñ wattuko sama xaq ma koo looyee ci kanamu yàlla président de yàlla nit ñi déggee danañ xam ne soxlawutoon mairie Kaolack waaye ee na njabootam ñun ñëpp nañu yëngatu leen ci politique lu tax ñu yëngatu ci politique mooy lan mooy xàq yi nga xam ne war nañ koo jox njaboot gi na agsi mooy képp ku bugg a jël région Kaolack pour foyee ko na xam ne dëkk bii fi la bàyyi di wax ne li ki naa min kantona bisini naa yéen fa kaw la xattaduu lu baax la ubbite jumaa ji fii lañu ñu fekk ñu nag moom ak doomu Cheikh Mouhamed Mansour ak doomam Cheikh Ibrahim ak njabootam ak commence bi nga xam ne moom la jiite lim amoon yëpp def ko cee defoon rek pour bu nit ñëw mi dina xiif mu nettali beneen nettali dafa am benn bés mu yónni taawam Cheikh Ibrahim mun ne ko demal ma Mali nga demal ma mukti nga taxawal ma ko ndax yàgg naa dem mukti di fa taxawee liggéey baay euh, mukti googu keroog bi baay demee ñëw mu ngi àndoon ak Cheikh Abdoul Baqi dem Cheikh Moustapha ñu seet si daara bi ak délégation bi yaatu biñ demee ñëw mu recevoir leen ci saal biñ ñëwee ñu toog mu ne leen nu ngeen gisee moom ñu koy wax ne ko ñoo ñu dañu bëgg bàyyi leen ñu bëgg yonent bi leen ñu bëgg Cheikh Tidiane leen sëñ Mamoune foofu de liggéeyal nga fa sa baay di wax wax ak coono yiñ daj ci diggante Mopti ak ko nga xam ne 600 kilomètres la ak yéen ko ñooñ ñëw yëpp biñ paree discours bi mu leen tenir dafa wax ne bàyyi yow xam ne yaa ngi jiite woon waxtu bi su ma lay gërëm du ma la gërëm ci coono yaa ngi ko coono waaye dama lay gërëm ci jikko bàyyi nga xam ne dañ koy mun mu ne ko ah mu ne ko jikko bàyyi dañ koy mun ndax jikko bàyyi lenn bi ci bakkan te àddina li ci neex yëpp bakkan la kon nag kooku moo doon suñu bàyyi bu baax bi nga xam ne daf ñëw njaboote woon daf daan jël temps ci kenn ku nekk ci ñun di lay laaj sa xalaat moo xalaatee ne yéen yéen lay mustaxbali nit la yéen ndaw ñi ëllëg ñun ñii nga xam ne jël nañ lu bari de seen tuuti danañ dem su ngeen fi desee nu ngeen paree jàppoo dangeen ngeen a paree jàppoo wala dangeen ngeen a paree wisaaroo ba ci àqari xayaatam ci bësam yu mujj ñu toog biir këram ma toog man ak moom biir néegam mu wax ma yu bari ci histoire boo xam ne jaar la ko ak bàyyi mu teg ko ci yoon ci ay éene yu bari ci Medina ci former parti politique am li nga xam ne moo ko taxaw te lépp di Medina di njabooti bàyyi bi di Sénégal euh, boo ñëwee mu ne ma tey jii de su ma demul sa kër ma seeti la dafay mel ni ki dootuma fa dem ci sama dund bi keroog mu ne ma jëlal sa oto nga eb ci Ababacar Lo ngeen ànd jiitu ma ma topp seen gannaaw ñu ñëw sama kër ñu ñëw mu waxaat ma lu bëree bëri ci loo xam ne lépp luy tabax ndaw la pour mu am vision bu sori lépp luy tabax ndaw la pour mu gën yàlla te xam ne amul kenn ku nekk ci kaw bi loo xam ne da nga am loo xam ne yàlla moo la ko loolu moo dawoon itteem kon nag sëñ bi biñ demee ba ci waaye daf ma doon ñaax rek wan ma ne moo xalaat ngay xalaat foofu ma wax euh, yàlla indi ko ci jàmm mu fekk njaboot ci jàmm di ñaanal Cheikh Mountassi yàlla loolu bu ko bàyyam tegoon ni siraatu mustaqim mu àll si ñaanal Cheikh Moussa yàlla tijjil ko buntu xéewal ñaanal Cheikh Aliou yàlla may ko wér ñaanal njaboot sëñ maama yi di jigéen ak bu buur yëpp lépp luñ dugg ci pays bii di seen daal di dégg ci ñoom yàlla na ko yàlla def ndaxte ñoom lu baax rek lañ mérité ci ëttu Mawlana Cheikh Ibrahim Baye lu baax rek lañ mérité ci Sénégal gii ndaxte seen baay bu fàggu na ko liggéey na ko taxawul rek ne man doomi baay laa muy tiitaroo juddu déedéet bi mu taxawee na man doomi baay laa jikko bàyyi yu baax yi nga xamante ne nii moom la baay doon doxee ci àddina bi yëpp la pare woon pour doxee ko daan ca def la nga xam ne lu jéggi dayaw la ñu ngi sant ñu ngi gërëm di amele fii suñuy kàddu fàttali ñu tur bi euh, Ousmane Hussein Niass macha allah Ousmane di doon Pape Ousseynou Niass macha allah jërëjëf si am maamu yëpp ci opportunité bi su ma amee pour am lu rafet loo xam ne walla loo xam ne jàpp naa ne rafet na mu di ko wax sëñ maamu ci sëñ maam la ñoom ñoo ma may possibilité bi waaye di wax ne lii nii lenn la rek ci li ma teewlu ci li ma mën a wax ci sañ maamu te tegaat nañ ma ci yoon boo xam ne danaa war a mën a gëstu lu gën a yaatu nii ba ba óolu naa man ma toog ñu teg ma ma waxtaan ci sëñ bi ndax li ma bugg a wax ci moom xajut ci 10 minutes xajut ci interview boo xamante ne nii ay 20 minutes la mm-hmm. mu doon nit koo xam ne nit yàlla baaxal la te jugee na fii Medina ci heure boo xam ne ñëpp a ko soxla woon ñëpp a ko bëggoon pour mu ne fii su fekkoon ne yàlla dafay tàggu jaam yi dana am ñu cotisé ci seen at yi ñu cotisé ci seen minute yi ñu cotisé ci seen ay seconde pour mu des jëmm ju ñu wéetal la jëmm yërmaande la woon baay bu matale woon baay la te ba suro baata baay boobu loolu suru la ñeel ñuy dox séeru maa ngi sant maa ngi gërëm maa ngi